waaw gaaw leen gaaw ngeen woote 77 251 04 05 Production leader dans son domaine. ah lii ñu am lépp tawfeex sëriñ bi a may. gën noo gàtt noo tawfeex sëriñ bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu baax te di leen ziar. di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha waaye noonu ni ziara kilifa yi nekk ci jotaay bi yépp di leen ñaanal suñ boroom defal nu nu fekk bis bi at yu bari gis nañ fi nag suñu xalifa di sunu mag di sëriñ Cheikh Gueye moom sëriñ Taïba Gueye moom suñu Omar Gueye Badar di sunu mag ñu ngi koy ziyaare bu baax te di ko ñaanal sëñ Ahmadou Sougou nag ku nekk xam na suñu diggante ñun ak moom day suñu wóllëre woo xam ni li yàgg na koo sàkku ci nun ngir bëgg gi nga xam ni bëgg na ko suñ jéere waa daan yaakaar naa booba léegi war naa ëpp lu mat juróomi at mu koy sàkku ci ñun ren nag ñu defal ko ko te mag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak Serigne Touba lépp leen waaye defal rek Serigne Touba nga ko defal kon bismillah bismillahi maa ngi dellu sant allahu buur bi moom mi sàkk jant julli ci xayrul xalxi ngir lu war la tey dellu sant Bamba sibtu Balla tey jii ma woy fi mbër mu yéem waa jéeri ak ña ca géej ga kooku mooy seex jéeri jàmbaar la jàmbur la mbërum njàmbur la kajoor bawal nee nañ boroomub cër la ca ak ndawam te fekk booba dalagul la daa fi wax téere yu mag ña gisagul ay waajuram sax ñoo ko daa gaaw femmu naa ko moyul wax yi ba màgg ak jàmm jàngaaniwul jàngul nde moom teewul ma xam mbir yépp kii ku yéeme la caag ndawam la daa fi def ay kiimaan yu kawe lool jaaxal ña dëkkee waadaan lii moo taxoon réew mépp maase topp ko di dem di jokk wekk ko te sopp ko ca yooya at bàmbaa nga woon maayomba seex jéeri toog fii di giseeg seex bàmba bu Bàmba toogee ci garab mu gis ko naa daama ngee toog mag ñi ñëpp yéem ko léeg-léeg mu naa Bàmbaa nga ne sot xalima ngir bëgg a bind ku naa kii yéem na ma léeg-léeg mu naa Bàmbaa nga ne sot xalima ngir bëgg a bind kone naa kii yéem na ma booba la jébbal seexu Bàmba ay mbiram te gisagul daam yéemu naa ci baatinam Bàmbaa nga woon géej seexu jéeri waa daan nekk ci jéeri ji di soo soodaan doom ju mu am muy góor mu tuddee bamba te sa wuñ daama nga won ma yomba bu dee jigéen mu daan ni na jaara mooy aw turam ki tax ñu sos ay daara ci lii la sax ba seexu bamba ñibbisi mu dem fa moom boof ni ko maa ngi yeeslu si seex bamba naa ko jéeri ràññe naa la lu jiitu tey xamal ni it naw naa la fa bamba nekk daana jël ay haddiya di ko ko jox ràññeeku lool ca donga ya ba am na bis Seex Bàmba jël ab tool bu rëy ne ko demal nga góob ko yaa ci gën a yay seex jéeri woolu seex jéeri xir woolu malaakay buur ba ab diir bu gàtt lañ fa def góob tool ba bambaanko naa ay nit nga wala woolu ngay wool ngay woo malaaka jéeri danga maa njoolu ba am na bis sëriñ bi jël ab leetar yónnee ko seex jéeri li lee dib tiitër seex jéeri jël leetar ba daat nii dongoom waaj leen nu jug dem fekk siñ ba njaareem mu nekk njaareem di fa def ay baatin yu yéeme lool ku jaaxle ku jaaxle moo la daatin ba am na bis mu daan leen ahlu badar ñëw nañ fi démb ñangarang fi gawar ñu ñu yéemu lool mu daani leen Seex Bàmba lañ doon ziyaar si mooy doon ay yonen ba njaareem la ne fa la wuyoo boroomam ñépp ko jooy ngir gisatuñ moroomam Seex Bàmba daat ni nañu def pa fa ñu def paate amar ñu def fa jéeri ngir ni ñoom ñoo bokki mbir Cheikh Bamba daat ni fa ñu def Paate Amar ñu def fa jéeri ngir ni ñoom ñoo bokki mbir bañ denc jee Touba ba si njaareem keroog la daam wax wax ju rëy ju leen yéem ngir dani leen ba ngeen di jullee soxna sa di soxna jaara ma nga woon ca sàppe sa Cheikh jéeri daal kenn la woon buur yàlla moonu ko tànnaloon ku rëy ab cër la lii rek a tax Ahmadu mii di ab sëtam at mu na muy woote di feeñal ay mbiram def na ko fii ci réew mi ak ca biti réew fu ne la koy woote jullit ñëpp di teew xam na ni lépp lu mu am ci dara jaam la ko amee moo tax mu far dib surgaam sa bis bi yàlla na nga ko yàgg a woote nu yàgg ko wuy si bu kenn wute sa bis bi yàlla na nga ko yàgg woote nu yàgg ko wuy si bu kenn wute amina amina bi jaahi bamba keme gi maam ceenoog sëriñ Masamba سلم على بدر جلال دجى الخلاب وعلى على سوي المقامة a ويسبي ويس نجل مكا خط خام wa البصر وذو الخيار سم jóg leen taxaw ci kaw maga sax jëri jóg leen taxaw jóg leen taxaw ci kaw maga sax jëri jóg leen taxaw ci kaw jóg leen njol maka yow man bi sadal ni daalo yow man bi sadal thế đa siêng lâm bala ma yëkkati sama kàddu nag Pape Isaaxa mi nga xamante ne yaa fi teewal grand sëriñ te Dakar dama bëgg nga ñëw taxaw fii sama wet ndax kat grand sëriñ te Dakar tey bu kenn fàtte ne moom laa def invité d'honneur muy Pape Ibrahima Diagne muy sama xarit di sama doomu ndey di sama lëpp di sama wéttal maa moom ñuy benn nit nag du la defal lu baax nga koy fàtte maa ngi xamal ñépp ne salle bii bu ma ci jotee ne ñëpp xam ne Pape Ibrahima Diagne la grand serigne de Dakar délégation bu mag la fi yónni Pape Isaaxa mi moo ko jiite ak mbooleem euh, ay xaritam yëpp ñëpp la yabal ak i doomam ak i sëtam lu baax kenn du ko nëbb ndax am na ñu ko mën a def te defuñu ko kon maa ngi sant ñi fi teew ñëpp di gërëm ñëpp di am mbégte mu rëy ci bis bi nga xamante ni awma lu dul moom ma woote ko yéen ñëpp ngeen wuy ma ndax nit kat amut lu dut bisam bis nag dafa am solo ci doomu aadama ndax képp kuy woote boo soñoon ba wootee ay nit ñu wuy la waaye waxantuma laa ak nag nit ñu am qualité te am solo te moom la ma yàlla defal maa ngi ci sant bu baax di sant yàlla bu baax lu ma santoon yàlla rek maa ngi koy dolliwaat di ko santaat waxuma la dara waaye tey ci suba ak léegi li fi teew ci ay kilifa ak i kóllëre yoo xam ne dañoo nuyoo dem buñ fi toogoon jàpp naa ne tey kenn fan gépp kenn du fi xaj muy dé bërki démb ba léegi nag nit ñaa ngi fi ñëw am na ci ñoo xamante ne ñëw nañ fi démb démb si eh, kenn fat daa fees ñu bari dañoo jaawale bis bi jàppoon na bis bi démb la woon kon loolu rek yéene la ak yëg ak yéene bari nañu fi ñëw ñoo xamante ne dañoo am ci man yéene goo xamante ne loolu yàlla rek laa koy seedeel bëgg sama ndam rek kon maa ngi leen di sant di leen gërëm di jiital ci cant gi ak nuyoo bi yëpp nag ña nga xamante ne ñoom laa pare na woon bis bi tey jii ñi ma ko pare na la tax ñu ma pare na leen ko loolu wartu ump kenn muy kan sëriñ Pathé Amar sëriñ paate li tax ñu jox ko cër bi moo moom cër bi kenn moomu ko ko du sëñ ndax tey kero bi nga xamante ne sëriñ Jéeri Waadaan Sugu jóge na Waadaan di dem Jurbel gàddaay dem fekk ji sëriñ Touba dem di ko dénki ak njabootam moom sëriñ Touba kat ba mu ñëwee ba sëñ Jéeri ñëwee lim njëkk a def mooy na dafa wax ne sëñpaate Paate naka dalal ci këram ndax sëñ Paate moo di mbokkam noonu la sëriñ Jéeri demee dal kër sëñ waaye ci biir teral gi nga xamante ne sëriñ Touba teral na ko sëriñ Jéeri dafa wax mbooleem waa njariñ ne ñëpp dem fekk sëriñ Jéeri Wadaan ci kër sëriñ Paate nuyu ko ndax gan la goo xamante ne gan gu yàlla màggal la kon na ñëpp dem màggal ko kon sëriñ Touba moo njëkk a jox cër sëriñ Jéeri Wadaan sëriñ Paate daloo ko teral ko ba tey jii ba nga xamante ne sëriñ Paate jiitu na sëriñ Jéeri ñu denc ko yàggul dara sëriñ jéeri waadaan tamit daal di nelaw sëriñ Touba daal di waxaat ne nan ko yóbbu ca mbokkam ba sëriñ Paate Amar loolu boo boole googu nag boole bokk dafa jiitu waaye nag yàlla da na a boolewaat ba pare sëriñ Touba boolewaat leen kon moo tax ma ne cër bii kenn moomu ko kudd sëriñ Paate Amar ak njabootam ñëw nañ def délégation mag te lu jiitu loolu nag sëriñ jéeri waadaan avant muy nelaw wax na ci baatin ne man de bu ma nelawee ñaar ak may xëccoo kenn ki mooy sëriñ Pati Amar keneen ki si des mooy sëriñ Sirilo kenn ku ci ne bëgg ñu denc ma ci wetam waaye ñaan naa ko suñu borom ba nee naa ko dama may ma ñu denc ma ci wetu sëñ Pati ndax lu waral loolu mooy sëñ Pati day mbokk day mbokk ba pare di xarit sëriñ Sirilo tamit xaritu sëriñ Jéeri waa daan la kon ñu xam ne sëriñ Jéeri njëkk sëriñ Touba di joxe ndigal naan nan yóbbu sëriñ Jéeri Waadaan ca sëñ Paate fekk na sëriñ Jéeri Waadaan moom ñaanoon na ko suñu borom ba suñu borom may kon sëriñ Touba la kenn xamul lu mu doon moo tax mu jaaree la ko foofu kon noonu la demee sëriñ Jéeri ak sëñ Paate daal yàlla moo leen boole baneen ba ca des mooy sëñ la Lamine Diop Dagana kooku len leneen la ci sëriñ Jéeri Waadaan mbokkam la xaritam la sëriñ Jéeri dala far di diisoo moom lu baree bare di waxtaan ak moom sëriñ Modou Lamine Diop daga na tamit loolu façon façon ahlu badar yooyu ngeen déggoon ñu naan ñëwoon nañ ci kër sëriñ Touba gi sëriñ Modou Lamine Diop daggana moo ko moom la ko sëriñ Jéeri Waadaan nettali sëriñ Modou Lamine Diop daga bindaat ko ci benn euh, téeréem ci téeréem yi sëriñ Modou Lamine Diop daga na mi ko ci leeral muy ah mi mi ne na lu miskiya mi ne na la sax ci la ko sëriñ Modou Lamine Diop daga na euh, junjee waaye lu jiitu sëñ Mor Lamine Diop Dagana sëñ Mor Lamine Diop Dagana ak sëriñ Jéeri lu jiitu loolu mooy maam tafsar tafsir xayaar Diop mi nga xamante ne waliw kaamin la woon doonoon maam ci la muy Lamine Diop na moom moo jiitu loolu ndax sëriñ Jéeri waa daan daka daka doon gis ci baatin wax na ne sëriñ Jéeri daka mas a woo ci baatin moom mu wuyu su ko mooy Ahmad tafsir xayaar Diop kooku muy maamu sëñ Mor Lamine Diop Dagana keroog ba sëriñ Jéeri waa daan njaareem ba sëñ Modou Lamine Diop jox ko loxo dana ko ah, man de xeetu tafsir Xayyaat Diop moo may xeeñ ci sa jëmm ji mu ne ko mooy sama maam loolu moo leen boole waaye sëñ Modou Lamine Diop Dagana doonoon koo xamante ne dafa mook sëriñ Jiiri laneen lan woon moo tax ma boole ko ci ak njabootam tamit ñoom ñëw nañ sëñ Matar Diop ko jiite ak doomam ak i rakkam ñëpp suñu xol seet na ci ñoom bis bi ma boole ci ñu bari ñoo xamante ne suñu mbokk lan ma leen ci rendre hommage ñoom ñëpp ñi ñëw fi ñëwin bu rafet ñu bu am solo boo xamante ne sunu xol da ci sedd lool te dara taxul ma def ko lu dul ngir yàlla ak bokk te macha allah wuy nañu ngir yàlla ak bokk ma ci jiital waa kër sëriñ Modou Wadane Amar bokk ak ñun naameen muy ñu baax waa kër sëriñ seex daaru Amar bokkoon ndeer baabu sëñ Cheikh maam Cheikh daaru baabu ndeer nekkoon dëkk bu ñuy wax ndeer waaye dëkkoon Touba di ku baax ak njabootam kenn desut leen ci man lépp ci bis bi def nañ ko ci. sànq rek sëriñ Ahmadou Anban moo doon wax ci seen tur ndax woy juróom ak sëñ Cheikh Daaru ñoo bokk ndey ak baay moo tax teew na fi ñaari teew teewal na fi teew ci kër sëñ Jéeri gi mu ak man waaye teew na fi ci teewaay waa kër sañ Cheikh Daaru ñu ngi leen di sant di leen gërëm waa kër sama nijaay tamit sëriñ Basiir Joxumpa bokk ak sama yaay woy ñaari woy jur moom it dañ doon ko rendre hommage mu doonoon sama nijaay joo xamante ni daf maa taxaw woon ci biir ak ci biti doonoon koo xamante ne ku ma ku ma yëgoon la ku ma fonkoon la nga xamante ne ginnaaw yàlla daal bari na lu mu def ci man moom sama nijaay jooju mu wuy ji boroomam bu yàggul dara maa ngi koy ñaanal yàlla sunu borom yërëm ko fa mu nekk ak mbooleem ay maamam ak i baayam noonu lañ doon ràmb randu hommage sama benn xarit ku ñu wax sëriñ Basiiru Jóob di sama lépp di sëtub Cheikh Omar Jóob doonoon sama xarit lool fonk ma lool fu ma mas nekk si dakaar gi fekk na ma fa fu ma mas a nekk man it fekk naa ko fa mu nawloo woon ma donte matoon na ma bàyyi di sama mag di sama lépp waaye dafa maa jàppe woon jàppun goo xamante ne yéeme na waaye jàpp googu li ko waral nag mooy baayam sëriñ Naar Diop ak sëriñ Ahmadou Tasrif Sougou boole goo nga xamante ne yàlla boole woon na leen ko mu doon sama xarit di sama lépp doomam a ngi nii sëñ Cheikhouna Diop sama rakk la sama xarit ànd ak délégation bu mag ñëw fi maa ngi koy nuyu bu baax di ko gërëm ak ñim àndal ñëpp dama doon ci rendre hommage woy juróom moo tax mu ñëw sëñ Bas nag moom kenn la woon ci man waaw moom moom mënumaa sori sax sama diggante ak moom ndax ni meloon ak man waaw noonu tamit lan doon ci rendre hommage soxna maam Bousso Sougou di yaay sunu bàjjan soxna Aïda Sougou mais toog euh, moom it sunu maam doonoon sunu kii abo maam aboni Sougou moom it rendre nañ ko aussi moom it def délégation ak soxna maam Bousso bu Sougou tamit yaay soxna Ndeye matt Sougou ak soxna Awa Sougou mële ca Sicap moom it ak njabootam ñëpp ñëw nañ ci suba ñoom ñëpp ñëw nañ fi jàmmanteeg ñoom génte ñu di nuyu noonu la nuyu tamit soxna xari baaba mi nga xamante ne Daaru Musti la nekkoon di sama maam di sama lépp ak njabootam kenn manquewut ñoom ñëpp ñëw nañ sant nañ leen gërëm nañ leen ci seen taxawaay seen yëg ci bis bi noon tamit lañ ci rendre hommage soxna matu mbay gumba la doo noon ku baax nekkoon marché asalem bu bis bi ma sànni ñëw day def délégation waa marché asalem yëpp lay àndal ñëw fekk si ma fii ànd ak man bis bi ba ni bis bi jeexee yàlla dogal moom it yàlla moom ko moom it ñi ngi koy ñaanal muy sama xarit di sama doomu bàjjen soxna bu su sugu mële cay golf ak njabootam ñëpp ñëw nañ ay mag a makki rakkam ñoom sëñ Pape Gumbalaak soxna Asta Gumbalaak ak seeni i rakk ak seen mag ak ñoom ñëpp ñëw nañ maa ngi leen di sant di leen gërëm di nuyu bu baax timit waa kër sëñ Aliou Ndiaye Guédé Baye Serigne Ndiaye dama doon ci rendu amas woy juróom soxna Mbàcce Diouf Baye Serigne Ndiaye moom ku ma xam-xam ma ak muy sama xarit di sama xarit benn bakkan di ku baax waa kër Serigne Aliou Ndiaye gi kenn desul ñoom ñëpp ñëw nañ ñëw ngir loolu loolu lépp nag ginnaaw yàlla bu ñu ko defee kóllëre rek moo tax ñu def ko waaye man amul lenn loo xamante ne man ko ci def ngir lenn man lépp lu may def yàlla moo tax ma koy def bis bii waaw waa kër alaaji taale seen ñoom it ñëw nañ def délégation alaaji taale seen ku nekk xamoon ko digganteem ak sëñ Ahmadou Tasrif Sougou muy ku baax addi àddinaam sépp mu liggéeyal sëñ Jéeri Wadaan ak ak njabootam liggéeyal ko sëñ Ahmad Tasrif ak njabootam doonoon ku baax ak njabootam ñoo fi teew Ahmadou Tasrif seen mu tuddi ko sama maam sëñ Ahmad Tasrif ñu bokk turandoo ak moom ak rakkam yu jigéen yéeg ñoom ñëpp soxna ma Seen ak sox soxna Mbaaco Seen ñoom ñëpp daal ñëw nañ macha allah maa ngi leen di sant bu baax di leen ñoo ñooñu daal mooy ñi nga xamante ñoom laa ràndawaat amaat sëti sëriñ Jéeri yu jigéen ñi tamit sëñ maa ngi lay seedeel def nañ ci bis bi taxawaay boo xamante ne yàlla rek laa ko seedeel barkeb sëñ yi ñoom ci sëti sëñ jéeri jigéen ñi rek laa la wax liñ jàng cee kaamin mën na ñaar fukki jox ko addee sëriñ jéeri waa daan ko bis bii ña nga nee toog ba bis bi ñëwee ñu ñoom ñëpp ñu waajal ko ñëw toog ànd ak man bis ba mu jeex ba pare yëkkati seenu ñàkk jox ma ko dimbalee ma ko ci bis bi ba pare ñëw yendu ak man maa ngi leen ciy sant di leen gërëm di leen xamal ne liggéey li def yéen rek laa ko defal maa ngi yéen ànd def seen maam rek ngeen bëgg moom laa bëgg moom la ñuy liggéeyal mbir mi nii rek la nañu gën a jàppoo te gën a nekk benn ànd te xam ne yàlla rek maanaam moo ñu boole ak bokkukat yàlla moo ko moo moo moo ko moo ko moo ko bëggal boppam kon nañu ànd te jàpp te jàppalante te jëmmal sunu maam ji liggéeyal sunu maam sëñ Jéeri Waadaan Sukku ji ndax sëñ Jéeri kat toll na foo xamante ne liggéeyal ko war na man de bu soobee yàlla lii ma nekk du ma ci découragé mukk maa ngi ciy gën a am maa ngi ciy gën a am courage saa ma saa yu ma xëyee maa ngi gën a am courage ci liggéey sëriñ Jiir Wadaan ndax xam naa sëriñ Jiir Wadaan fu mu ma féete sagal na ma ci biir sagal na ma ci biti kenn du sëriñ ci man maa ngi koy sant bu baax waaw sant maa ngi koy sant de man sëriñ Jiir maa ngi koy sant de lii lépp sëriñ Jiir la man lu ma am sëriñ Jiir Wadaan la lu ma nort lu ma amut rek man man sëriñ lu ma am sëriñ Jiir ma ko jox lu ma ñàkk sëriñ Jiir ma xañ man xooluma ci kenn xooluma ci ma sàmm xooluma ci sëriñ Jiir moo ma moo ma suturaal moo ma defal sakk lu ma am moom la man awma dara dara laa amut lu ma am sëñ jéeri waa daan la maa ngi koy sant bu baax man mënuma kaa fay de mënuma kaa fay bii fi saal bii ak bis beeg lu ma ci def sëñ jéeri waa daan moo ma ko jox maa ngi koy sant bu baax maa ngi waaw kon nañu gën a encouragé waat gën a liggéeyal sëriñ jéeri nan ànd liggéeyal sëriñ jéeri waa daan sëriñ jéeri liggéey na ci lislaam liggéey ci yoon wi loo xamante ne il ñu ñu góorgóorlu mën a fésal loolu mën cee jàpp nañ ci jàpp bu baax a baax maa ngi leen di sant bu baax di sant nag sama xarit yi yëpp mbàkke mbàkke yi nga xamante ay sëti sëriñ Tuubaa nga xamante ne sama ndam rek mooy seen ndam lu ma lu ma lu ma nekk ñu nekk ci ak man di ma sagal di ma suturaal duñ ma tuutal fenn duñ ma duñ ma xeeb ci lenn maa ngi leen di sant mënuma leen a fay samay xarit ngeen di ngeen a baax di ngeen maa bëgg di ngeen maa yéene di ngeen maa safoo maa ngi leen di nuyu maa ngi nuyu mboolem sëtti sëriñ Tuubaa yi fi teew ci suba ba léegi sëñ moo Aziz Modou Aïssa moo fi njëkk ci suba ak i taalibeem yu bari yëkkati xaalis bu bari jox ma ko na ko def ci bisub sëriñ Jéeri Waadaan bi maa ngi koy sant bu baax sëriñ Cheikh Imam démb rek nga doon def sa bis démb ci guddi nga bàyyi sa yitte yëpp ñëw ànd ak man bis bi ba bis bi jeex maa ngi lay sant ak délégation bi nga àndal yëpp gis naa leen di sant bu baax sama rakki bomba ji sëñ Bamba Sugu moom sëñ Mama man bu ma jàkkaarloo moom rek mi ngi mel ne sëñ Mame laa jàkkaarloo maa ngi lay sant bu baax Sougou kontaan naa jërëjëf Sougou waaw bu ma paree rek nga fu ma toll ma rek comme yow yaay sama kilifa te boo waxee dootuma waxati eh, asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbooloom jullit mi fi teew yépp moo xam doomu aadama yi fi teew yépp maa ngi nuyu ñépp rek ca suba ba léegi jataay bi waaw rafet na lool waaw taaru na macha allah waaw liñ naan nag ah mbir boo ko tuddee rek lu mu gàtt gàtt faw mu yëg la loolu moo waral kàddu yi waaye du dara maa ngi nuyu ñi fi teew ñépp di leen xamal ne sëñ bii di sëñ Ama Tasrif moom sëñ Màmma mii yàlla dogal na maay jëwrinam ci lépp sax maa ko waroon a yëkkatil kàddu gi waaye kàddu gi muy yëkkati maa ngi ciy sant yàlla di ko ci sant di ko ci ñaanal liggéey bi mu bëgg a liggéeyal sëriñ Jéeri ci darajey waajur yi ñu bokk ak maam yi ñu bokk yàlla yeggaleel ko ba fu mu bëgg a jëm mu jëm fa ndax amuñu ci moom lu dul ak yaakaar te yaakaarun ci moom lu dul yàlla ak yonente bi ak sëriñ Tuubaa ak sëriñ Jéeri Waadaan ak ummal islaam bi yépp ak àdduna bi yépp kon ñu ngi koy siyaara di ko nuyu bu baax di nuyu suñu waajur wi fi teew sëñ Amet Sugu di nuyu njabootu sëriñ Jéeri Waadaan gi ak sëñ Siidi Mbàkke njabootu sëñ Tuubaa gi yépp sant nañ bu baax a baax a baax a baax sëñ Amadu suñu xol daa sedd tudd gi nga ñu tudd rek laal gi moo tax ñu jug waaye yow benn lañ ñun suñu lépp benn la waaw ndax sëñ jéeri mooy sëñ Tuubaa mooy sëñ maam mooy lislaam mooy àdduna bi yëpp kon ñu ngi nuyu ñëpp jërë ngeen jëf asalaamaaleykum. waa kay kon noonu la demee waaw ma tuuti waa kay noonu lay sante tamit euh, sëriñ Moustapha Ndiaye alkarim mii di sama xarit di sama doomu ndey moom moom ni mel ci man man daf ma sax yéem man waaye nag naa ko bàyyee yéen a jëm am ci man ak jàpp gi ma jàpp yàlla rek laa koy séedeel maa ngi koy sant bu baax. di sant sëñ Modou Dia mii nga xam ne mooy suñu président mooy président ànd dox jàmm dañoo créé sëñ Ahmed dañoo créé groupe boo xamante ne groupe dox jàmm lañ ko tuddee nga xamante ne ñun ñii ñoo ko seq sëñ Modou Dia mii mooy président bi sëñ Modou Dia sëñ Modou Dia njar moo jur baayam muy ku baax ko am taxawaay ñu ngi koy sant bu baax délégation lañ def kër sëñ Moustapha mii lañ yendu sëñ Moustapha berne leen lu ne mu def ne leen comme sëñ Ahmadou woote moom lépp maa koy def bu leen sonal sëñ Ahmadou bu leen dem këram bàyyi leen toog leen fii lu sëñ Ahmadou waroon def danaa ko def ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm euh, ginnaaw loolu mooy nuyu tamit sama xarit Serigne Moustapha Serigne Mourtada moom sëñ Moustapha Alaaji Baara moom moom day sama xarit maa moom ñoo jàngandoo ñoo defandoo lépp muy sama xarit lu ma nekk mu nekk ca maa ngi koy sant bu baax sama xarit la moom ku ma xam-xam maa moom sama xarit la lool sax nag maa ngi lay sant bu baax Mbàkke Bala ci sa taxawaay sëñ Mourou Maama Ñang moom moom ndeysaan dafa may woo lu ne mu wax ko ci lu baax di la conseil lu ne rek macha allah jërëjëf ah sama ñaari xarit yii nag Cheikh Ibrahima Ndiaye jógee kër Cheikh Ibrahima Niass bëggoon naa sax mu jël fi kàddu muy sama xarit lool nit ku baax a nii ah di ak Thierno Nourou Ba mii ñuy samay xarit du doomu sunu ma sunu maam Seydou Nourou Ba ñuy ñu baax maa ngi leen di sant di leen gërëm. waaw waaw gennaaw loolu nag colonel Lamine fay Lamine fay fa la fa la ñu yendu tey Lamine Faye sunu lépp la Lamine fay mën naa ko sax ba tudd ndax li waral loolu mooy sunu diggante ak président ab Ablaye Wade Ablaye Wade dafa am cër ci kër sëñ Jéeri Wadaan Sugu ndax maamam Mor Toola Wade Mor Toola Wade ak sëriñ Jéeri Wadaan dañ doon ay wëllëre di lépp Mor Toola Wade lépp sëriñ Jéeri Wadaan la woon Abdoulaye wadd mii nga xamante ne tey moo nekk président de la république maa ngi waat ci Serigne Djily Wadane Sougou lii mu nekk Serigne Djily Wadane moo ko ko def bu ko xamee moo ko ko def bu ko xamul moo ko ko def président gi mu nekk Serigne Djily Wadane ba mu koy wax Abdoulaye Wade xale bu ndaw la di raam Serigne Djily gis ko di am lu muy wax ci moom loolu naka ñëpp xam Abdoulaye Wade cërub kër Serigne Djily Wadane la moo taxit teral nañu suturaal nañu lu nekk Wadane Abdoulaye Wade moo ko fa def Abdoulaye Wade moo fa indi pëli ba moo fa indi ndox mi moo fa indi courant bi lépp Abdoulaye Wade moo ko fa indi ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla guddal fanam kii nga xamante ne moo fi nekk tamit waa këram ñu ngi nii toog mooy mooy waa président Macky Sall waaye nag ñun suñ jëmmi bopp ñun dañoo amul ay taxaw ci kër président de la république amuñu fay taxaw président de la république muy Macky Sall fee ca waadaan sugu amul lenn lu mu fa defagul maa ngi la koy seedal yow mi nga xamante yaa fi teewal Amadou Ba waadaan sugu gee nga xamante ne moom lañu am mooy sunu capital mooy sunu jamaa mooy sunu or président defagu fa dara te li muy def ci kër yëpp war na kaa mën a def ci waadaan gee ndax waadaan nag ku leen ëpp baatin ci yoonu murit amut ci yoonu lislaam bi amut ku leen ëpp mbooloo tamit amut nañu bàyyi xel bu baax a baax sunu kilifa yee fa nekk kenn ku fay dawal oto boo xamante ne jóge na ci pale bi amut kenn ku fay doxantoog passeport amut kenn ku fay doxantoog leneen amut te loolu lépp war nañ ko am ni ko yëpp amee waadaan sugu gi war nañ ko faa mën a amee loolu nag maa ngi la koy yóbbante di la xamal ne moom président de la république am nañ ci moom yaakaar te ñu nga xam ñu ngi koy xamal nag tamit nag am na sunu ñaan nag ndax am na fu mu daje woon nag sunu kilifa sunu benn kilifa sëñ Bamba Sugu ci kër sëñ Mbàkke Soxna Lo sëñ seexum sëñ Mbàkke Soxna Lo téye ci loxoom téye ci loxoom sëñ Bamba na ko damaa bëgg nga ñaanalal ma ko sëñ Bamba ne ko de comme wax nga ma loolu de danaa ko ñaanal yàlla fii ma toog ba tey ban fa jógee matu matu ñaari at ci leen def président euh, Macky Sall président de la république kon ñu ngi ko koy seedal dafa xam ne waadaan ña fa nekk bëgg nañ ko trop suñu xalifa bii fa nekk sëñ Matar wallaay xasim ni mu bëggee Macky Sall man daf maa yéem sax waaw il faut ma wax ko bis bi ba mu jubsee mboolem ministère yi ministère yëpp bind naa ay leetar yóbbu ko fa leetar ay leetar yóbbu nañ ko fa waaye amut benn ndaw loo xamante ne gis nañ ko mu jóge ci ministère yi ñëw wuy suñu ci bisu sëñ jéeri wala dañoo jàqar na rek waa kër sëriñ jéeri moom dañoo bokk ci yoon yi wala lan waa kër sëriñ jéeri dañ cee bokk nañ leen bàyyi xel bu baax ministère yeeg directeur yeeg yëpp bis bii daal man jàpp naa ne lépp lu fi am ah baaxul sëriñ jéeri waa daan la de waaw kon daal na na nga xam ne maa ngi sant ñëpp daal di gërëm ñëpp Baye Amet Sugu ci yow lay tëj maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm di kontaan ci yow yow mënuma laa fay teral gu teral doomu teral gu ñuy teral doomu aadama rek teral nga ma ko man façon teral ak façon sagal bu ñuy sagale doomu aadama sagal nga ma ko loolu ñëpp xam nañ ko am na ci ñoo xamante ne mën nañ laa mer ci sama jëmm ji sax ndax wax yu wax yi nga xamante yaa ngi koy wax ci man ndax du ma dajeeg yow mukk ci barab te tëraloo ma suturaal ma bu ma dajee ak yow ci mbooloo sax foo xamante sax njaboot a fa nekk am tudd am fa bu ma ñëwee danaan du ma tudd même sa doomi bopp bu fa teewoon sax doo ko tuddloo mën ngay tuddloo booy waxloo man ngay wax loo loolu lan la man man lan laa la defal ba nga mel ci man nii nga mel ci man maa ngi lay sant bu baax sugu maa ngi lay ñaan ci daraja sëñ jiiri waraan te loolu di sama jëmm sëñ màmma la bëgg moom dafa bëgg sëñ màmma sëñ màmma lay xool ci sama jëmm ji bu ma xoolee rek sëñ màmma lay gis ci moom ba tax mu may suturaal ni may suturaale jërëjëf Sougou maa ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal yàlla yàlla na la fi yàlla yàggal di ñaanal tamit sa mag ju baax ja ja nga xamante ne ma ngi ca waaraan muy sañ Mama Sougou dafa wax njabootam gépp bu fa kenn des na ñëpp dem jàppale Ahmadou ci bisam boobu nga xamante ne moom lay defal seen maam ànd leen ak moom ànd leen ak te jàppale ko kon sëñ Mama maa ngi koy sant bu baax noonu laay nuyee nag sëti sëriñ Jéeri Wadane yëpp. sëriñ daam mi nga xamante ne mooy doomu sëñ Maxtaar di sama xarit di sama xarit di sama mag barki démb ba léegi mag moo ma ànd ba keroog ba may dem sëñ Bass Abdou Khadir keroog waa waa kenn desu ñoom ñëpp ma gunge sëñ Ahmadou an ban mii sañ daam ñoom ñëpp dañoo ànd man kero ba muy dem ci kër xalifa général de Baye Fall bii di fa yóbbu carte parce que ñun suñu diggante kër sëñ Jéere kër Cheikh Ibra jàmm rek moo fi mas a am leneen du fi am lu du jàmm kon lii nga xamante ne moom ngeen def rafet rafetlu naa ko lool sëriñ bi waa sëñ daam soore mi nga xam mooy porte-parole sëriñ bi moo yónni sëñ Bada Fall mais na ko dem leen ca bisub sëñ jéer waar ngeen toog fa boo bis ba jeex waaye yemuñu ci loolu waaye dañoo yëkkati addiya ju bari jox ñu ko nañu ñoo ko dimbale ñoo leen ko dimbale ci bis bi jox leen ko loolu nag mooy mooy yëfi doomu aadama ñu ngi leen di sant ñun ñoo bokk sëñ Touba ñoo bokk sunu bokk ñu ngi leen di sant di leen gërëm di nuyu bu baax sëñ Sidi Mbacke mais borom xaas sama xarit la sama doomu ndey la sama dëkkandoo la sama lépp la maa ngi moom dañu benn tey moom li ma am musuma kaa am nan ma may tey li ma am musuma kaa am ci sama bis bi ba ma ko dalee def bis ba léegi parce que man sa njéere laa am sa njéere rek laa bëgg tey ñaari doomi sëñ Ahmad Tasrif ñi ngi ci tant bi te musu musuma am loolu sama bàjjen bu bokk sama baay ndey ak baay muy soxna Binta Sugu mi ngi fi sëriñ Ahmed Sugu mi mi ngi fi ñoom ñaar ñëpp ñuy doom doomi sëñ Ahmad Tasif te loolu mosuma kaa am te mosuma xalaat ne sax danaa xam sa am ci sama àddina ñu ñëw defal ma ko kon man tey am naa lépp jërë ngeen jëf sama yaay soxna Ami moom mooy borom bis bi ak mbooleem ay rakkam soxna faaloog soxna soxna Khadija Xumpaak soxna Faati Gallo ak waa Mbuur yi ñoom ñëpp macha allah ñoom ñëpp parce que ñoo def bis bi def ci leen war a def yëpp. soxna aada mbay me di jarbaatu alaaji basiru Diagne euh, Mariam Diop baay Pape Ibrahima Diagne ma nga ne di sama xarit nga xamante ne moo jàpp sama loxo yóbbu ma ci Pape Ibrahima Diagne boole ma ak moom booba ak léegi Pape Ibrahima Diagne jàpp ma jàppin goo xamante ne mësumaa gis googu jàpp maa ngi koy sant bu baax soxna aada mbay maa ngi lay nuyu ak mboolem délégation yi nga àndal ak waa Sicap Foire yëpp gis naa leen maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm sëñ Modou Kiman Diop mooy man may moom barki démb la ñëwoon tey moo doon dalal gan yi moo def lépp sëñ Modou Kimane Diop eh, di di ku baax di sëtu sëñ Masamba Ndiome Diop sëñ Masamba bokk ci ñi sëñ Touba seexaloon muy sama xarit di sama lépp fii la takk takk ba sab nekk di dugg ak génn kisee siit ginnaaw yàlla nii mu tegaloo ak ni taabal ji ni nga ko defee yëpp sëñ Modou Kimane jóob la ba pare yëkkate alalam def ci bis bi muy sama xarit maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm Diop lii nga def de ah ak mbaax rek la sëñ Moustapha Mbacke tey ba moom ci suñ ci ñoon la bokk ak sëñ Jili Ndiaye ñooñu man maa ngi ñoom ñoo bokk benn groupe sa guddi ñooy bokk fu ñuy waxtaanee ak sëñ Mourou Diame ak sëñ Moustapha sa al Karim ñoo bokk fu ñuy waxtaanee ñoo bokk téléphone bi ñuy waxee ñoo bokk lépp du ci dara ñun ñëpp ay xarit ñu ngi leen di sant sëñ Ablaye Joxumpa kontaan naa ci yow ci sa waxtaan lii rek la ñun ñun duñ duñ jéggaane dara amul lenn lu ñu jéggaane borom xam-xam nga boo xamante sa xam-xam dafa rafet te sell moo tax ma woo la nga jóge poroxaan ñëw ngir yàllaa ko bokk ñu ngi lay sant li nga fi wax dara mënu kaa dindi sagal nga ñu trop macha allah nit ku nekk bu sañoon sa mbokk euh, ku ñuy nawloo la ku ñu fonk la borom xam-xam lay doon te macha allah yàlla def jox na la ngay borom xam-xam ba pare sëñ Muntaxa tamit doy la am fu la teg ah sëñ bi sëñ Cheikh Gueye nga xamante ne moo nekkoon ambassadeur Jeddah ma nga nee toog muy sama xarit. muy sama lépp di ku baax ma nga ne maa ngi koy sant bu baax maa ngi moom umra bi weesu rek ñoo bokk nekk Makka mu may taxaw di ma woo téléphone balaa lekk woo ma na ma sëñ mi ñëwal nangam nangam macha allah maa ngi lay sant di la gërëm sëñ Cheikh Gueye di sant mbooleem kilifa yi diine yi fi nekk ñëpp si mu Diouf jatteeg yéen ñëpp maa ngi leen sant sëñ Sidi mbàkkee nag maa ngi lay gën a beralaat sant yow sama xarit ga sama doomu nag ga waaw ah, sa sa Aysatu Sabara sama xarit sama doom ndey la sama lépp la ñëw na def délégation bu riis ànd ak ñoom war a ànd ak ñëpp te am ci yenn ci bis bi saa su ne mu may woo sëñ bi foo toll na bis bi def wool diw wool diw wóol diw macha allah maa ngi lay sant bu baax ci seen taxawaay alaaji mbay ñebbe yow moom taalibeb sëñ Ahmed Sugu nga waaye borom pëstéef nga ku bëgg sëriñ jéeri waadaan nga boo gisee ma fonk la man du caagi ni loo may jox wala loo may defal ndax man fi ne nii moom dara daf feesut sama bët lu dul sëriñ jéeri waare ndax man lu ma bëgg sëriñ jéeri dana ma ko defal ak mbir lu mu jafe-jafe-jafe bu ma wooy sëriñ jéeri sëriñ jéeri fajal ma ko kon alaaji may ñebbe bëgg gi nga bëgg sëriñ jéeri ak wóolu gi nga wóolu sëriñ jéeri moo tax ma fonk la maa ngi lay sant di la gërëm foo toog bala nga fa jóge da nga da xamal ña fa nekk ne sëriñ jéeri waa daan moom laa yaakaar mooy sama sëriñ kero ba nga xamante ne yaa ngi jur sa sa taw bu góor ministre yaag député yeeg ñëpp a nga ne bala ma bala ma ko tudd kenn naa ko tudd sama wasila sëñ Amet Sugu mii nga ko tudd keroog sëñ Amet man mii la jox tur bi na ma tudd ko ñu ngi lay sant bu baax du sant waa diwaanu Lamp sa njiir waanan yëpp sant naa leen gërëm naa leen kontaan naa ci yéen bis bi jag naa la ngeen waxoon ca réunion ba yëpp mattali ngeen ko ba mat sëkk kontaan naa ci yéen gërëm naa leen soxna ba sama bàjjan soxna Ayda Sugu damaa xam dafa dem wala déet waaw maa ngi maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm ci taxawaayam taxawaayam rafet na trop maa ngi koy sant bu baax waaye nag waaw di sant ñëpp teewal Amadou Ba ah kii teewal sëñ Amadou Ba sa kàddu yi rafet na trop jàpp gi nga jàpp suñ ñaari kilifa yi rek man loolu laa la jàppe man muy sëñ daam ak sëñ anban man loolu laa la jàppee parce que mënoon ngaa bañ a ñëw lii daanaka ban la ko waxee léegi est-ce que démb ak tey la te dangaa ngaa wu ñëw toog ñu ngi lay sant bu baax di lay yóbbante ci Amadou baax président euh, premier ministre Amadou Ba yàlla na ko yàlla dimbali te suturaal ko ci li muy sàkku suñu borom defal ko sant nan ko gërëm nan ko maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp soxna moom Momi Kébé yónni na fi délégation bu mag maa ngi koy sant di ko gërëm ak kan waaw waaw sëñ Allé Touré maa ngi lay nuyu sama mag la moom ñoo bokk bàyyi ñoo bokk lépp taxawaayam rafet lool macha allah jërëjëf Touré yéex naa la gis sëñ Cheikh Imam bég naa lool sëñ bàmbam sëñ mun naar sugu sa taxawaay rafet na ak sa yéene jërëjëf sugu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 gaaw gaaw leen gaaw ngeen woote 77 251 04 05 Tawfekh Production le leader dans son domaine. a ah, may. gën noo gàtt noo tawfeex ci sëriñ